bi ak docteur Abdou Khadre Sanoko di sociologue euh, di itam ku ràññeeku ci wàllu psychologie euh, ñu war a ànd ak moom tey ci waxtaan wi docteur ñu lay nuyu am mbégte lool dalal la ci démb ak tey yaakaar naa ne guleel la ñuy sekk waxtaan euh, ci émission bi dalal ak jàmm. waaw maa ngi nuyu di leen fay nuyu seen auditeur ak auditrice yi di rafetlu aussi kóolute bi c'est vrai que c'est ma première ci démb ak tey. Mm-hmm. di ñaan yàlla lu ñu fi wax. mu nekk njëriñ rek mhm. jërëjëf loolu rek mooy jubluwaayu émission bi. alors euh, docteur Abdou Khadre Sanoko ni ma ko waxee li waral euh, ñu bëgg a def waxtaan bi mooy tey dafa am yu bare bari yoo xam ni askan wi dañu koy jànkoonteel société bi ci boppam bokk na ci fitna bi nga xam ni saa yu nu yeewoo mu mel ni daal moom tànki kanam rek la am amul tànki ginnaaw ndax delluwul ginnaaw donte jël nañu ay matuwaay ci wàllu kaaraange ak yu ni mel kàddu yi tam di gën di ànd ak fitna ak yeneen ak yeneen yoo xam ni laxasu na ci euh, boo méngalee fitna gi am tey ak euh, démba ni askan wi doon dundee société bi fi mu tolloon ci wàllu woowu lan ngay gis ak lan nga ñu mën a wax. waaw mais lu wuute forcément forcément que problématique gu violence bi dafa wuute xam nga société bi ñu nekkoon waxuñu violence amuñu fa woon de. Mhm. mais ñoom dañ ñoo dàqoon a muñ. xam nga muñ boo am na ñu koy tuddee tolérance mais ci baat bi dama jéggi moomu tolérance sax ba dem ci respect mutuel. xam nga muñal nit du mu tooñ la nga baal ko. waaw muñal nit mu ngi njëkkee ci nga def lépp ba bañ koo tooñ. te loolu moom tubaab du ko tuddee tolérance man j'ai l'habitude de dire que le tolérance pour man effort booy def la. mais je préfère le respect mutuel. mooy gëdd gi ma jox sama bopp ak cër bi ma jox sama bopp ma jox ko sama morom. waaw suñ ko defee rek amaana jafe-jafe du mais surtout beneen élément bi ci topp mooy ñuy jëmbat di suuxat jàmm wala ñuy wax la culture de la paix. Mmh. mais fii nag c'est tout à le contraire nit ñi dañuy jëmbat di suuxat fitna beneen bi mooy amuñu dalu muñalante te nit ñi am nañ jafe-jafe seen biir ba euh, koo ci laal mu explosé. Mm-hmm. ñëpp a sonn te jamono waaw koo ci non nit ñi dañoo sonn yeneen sonn yoo xam ne sax amaana ça n'a rien à voir ñi dañu am problème mu dépense ñu problème mu faju ñu problème mu jamono ba koo ci dëkk wala nga fiir ko wala nga fel ko sax moom jàpp na ni mbiri doole la koy faje or dama ci bu njëkkaan jafe-jafe yi musu fay jug biir Sénégal parce que Afrique dafa nekk gox bu ndóol bu tumuranke bu sunuy ressource bëriwul léeg-léeg sax lañ fi gis ay ressource pétrole ak gaz ak yooyu mais bu njëkkaan amul yoon mm-hmm. te teewul dañ daan dox jàmm di ko dox dañ na naan dañ ni nag jàmm ku ko jëmbat wala nga suul ko moom ngay góob safaan ba nag ku ko jëmbat wala nga suul ko aussi moom ngay góob. kon ci nit ñi la nitu démb yaak nitu tey. waaw ñoo bokkul xam nga léeg-léeg ma dégg ku naan ma beneen façon mu Sénégal bis bu nekk su may wax. man leen tey ñoo dellu te sénégalais waaw nouveau type mais ancien baa gënoon parce que l' ancien bu yeewoo suba li mu jàpp ni mooy richesse mooy jàmm ji mu toog ba mën a bay jàmm ji mu toog mën a sàmm. jàmm ji mu toog ba mën a rëbb loolu pour moom moo gën fuuf alal ji xaalis bi ak prestige. ñoo lépp ne sax jàmm ci la lépp xaj. ah jeex na léegi nag léegi nag dafa dafa mel ni njëkkante ak am-am ci la lépp xaj te gis nga njëkkante ku ko def buuxante ku buuxante tëlante mais ku tëlante xeex wala nga xuloo mm-hmm. ku xuloo tuur deret wala nga génne ko. Hmm. léegi lan mooy saafara docteur ci ci ponk boobu fitna gi am tey nit day xuloo rek jàmpaaka dee na après waaw fa lay man de li ma jàpp man li ma jàpp mooy ñu approprié wu li ñuy tuddee ci tubaab culture de la paix te sax li may wax nii du samay wax foog naa màggal gi bi ñu ko génnee rek soo déggee xalit bi ndigal li mu joxe hmm. daf ni nañ leen delluwaat ci jàmm ak jàmmoo xam nga pour affaire de priorité hmm. ñetti simili même man mi ko am ma teggi sama tànk bàyyi ki may njëkkante tooñ ko reetaan moom ah comme yaa ko gën a bëgg kat demal voilà loolu la wala di wax neex deret il faut que ñu neexal suñu deret parce que j'avise les sénégalais mm. jamono métti na métti boo xam ne ñun suñu neer yi suñu suñu neexalul bopp suñu deret rek dinañ def bis bu nekk safaan. kon situation yi ñuy dund daf ci am part de. waaw waaw situation yi dafa créer si ñun ay tension interne. te ñëwoon démb ñu woon genre situation yi. xam nga lu tax dunduñu ko gën a metti waaw. xam nga jamono sax amaana sax xëy na metti woon mais ku amoo ñaar fukki dërëm yow doo jàpp ni loolu mooy jafe-jafe. Hmm. parce que da ngay jàpp ni am nga benn mag wala benn xarit wala benn dëkkandoo. Hmm. soo fa demee léegi da nga doon dégg ñu naan ku dund ba déwén. Hmm. lekk ren ba déwén. dañoo amoon benn esprit positif il ah. positive tout ñun nag léegi on est devenu trop négatif hmm. xoolal nit da ngay xëy suba yor sa poche dix mille francs hmm. yàlla may la wér amoo cancer amoo feebaru roño amoo tus hmm. ñu laaj la ba nga yeewoo suba ne la noo def ah waaye dëkk bi kenn xamul nu mu demee ngay jàmbat kon doy yàlla defal na la sutura ngay dox di wax amoo lu lay te am nga loo joxe dépense ba desal ñàkk doylu moo ñu sonal teewul da ngay jàmbat donc nañuy positive mbir yi di neexal suñu deret mais di di muñal suñu bopp di muñal ñeneen hmm. suñ ko deful métit yi suñ ko bëggee jël def ko suñu bopp suñu xel ak suñu xalaat waxuma la sax ci biti duñu jubóog suñu jabar yi duñu jubóog suñu doom yi duñu jubóog suñu mbokk duñu jubóog jàmbur hmm. voilà te pour man te pour man hmm. yàlla may na nit xel boo xam ne nii jafe-jafe lu mu métti métti lu mu tar tar tar xelu nit mën na koo gérer. Hmm. waaw mooy ngay suukar am na benn waykat bu yàgg bu ma doon dégg xam naa siwul woon nag trop mais ma retenir lu am solo ci li mooy suukar sa jëf la doon wax mu ne nit saa war a suukar sa jëf. suukar sa jëf su ma ko doon tekki ci français mooy nit il faut tout positif. Hmm. il faut avoir l' esprit positif mais issi nañ ma baal sénégalais yi dafa bëri ñu négatif. koo ci xool rek mu ne noo da nga maa xool parce que da maa gëdd a yàpp lu tax nga def ma nii mais amaana chaque jour booy wax ne ah xëy na tayu ko lii moo tax mu def ko jublu ci woon lii loolu mooy suukar sa jëf. ñooy layal nit ñi daal. ci suñu voilà et puis c'est de le côté positif et des excuses aux mm-hmm. ne jamais laisser les postures d'incrimination. Mm. moo ko tay ñu wax la déedéet ñu ne pourtant tey nga ne si si moom moo ko tay kay moo ko tay lii la si jublu. donc xëy na loolu bu ñu koy def mbir yi dina gën a soppeeku sinon suñuy jël en ligne suñuy jafe-jafe quotidien di ko mettre en interrelation avec ce qui se passe hmm. ci suñuy comportement chaque jour dinañ def musiba hmm. njiitu réew mi fi nekk tey bi muy doog a ñëw bokk na ci li mu doon wax xëy na ñu euh, jëmbataat yenn jikko yi restaurer valeur yi mais tey gis nañu ne ñoom politique yooyu jiite ñu sax fitna gi fa la ëppee doole waxante lu ñaaw li fa la ëppee doole. kon tey solution yi ngay wax nii baax na xalif général woote waaye wóor na ni la mu wax ñenn ñi ba ñu ko déggee ba génnee foofu ca aw fii dugg fee donc tey yenn paramètres peut-être lañ mun a jaar ba nga xam ni xëy na dina am euh, yenn jeexital yu muy am euh, woote yoo yooyu si si si si nit ñi Sénégal par exemple am nañu lu riche mooy cousinage à plaisanterie kalante bi résoudre na problème yu bëri personnellement fekke naa ci ñaari nit yu naroon a xeex ba fa kalante génnee ay reetaan ak tàppante moo ci mujj xamoon naa ne yow lii nga xamoon naa ne yow lee nga mais dafa mel ni yooyu tey dafa tàmbali di jeex nit ñi daanaka farataaluñ ko lool fan la ñu mun a aw docteur Sanogo ba xëy na saafara jafe-jafe mais fu simple ci njàng Euh, dañu am change bokk ci génération yi tase kanaalu famille di ñu jàngal di ñu yar di ñu tàggat. Hmm. te léegi nag famille dafa nekk en crise léegi nit ñi évolué wu évolué wuñu ci ay cercle familiaux ci ay cercle de couple la ñuy évolué hmm. waaw léegi comme famille dafa nekk en crise na école jël mbiri en charge hmm. lan moo tax du ñu indi ci njàngalam école primaire culture de la paix mode ak méthode de résolution traditionnelle de conflit Euh, cousinage à plaisanterie kalante bi mhm. mais loolu booy yi léegi xamatuñ ko à l'école ah. primaire lu tax duñu duñu indi mhm. visiblement ci suñu programme ñu reformaté ko boole ci boole ci boole ci élément yooyu ak indicateur yooyu ba booy di ko màggaale ba ci biir école bi mhm. ñu mën koo def benn ñaar lan moo tax duñ def promotion wu ñuy woote jàmm ci di ko wax donte ni am na ak féewaloo ci seen positionnement politique lan moo tax médias yi daal ñoom ñi ci bëri li leen intéressé mooy ñaari nit yi ñu invité ñuy xuloo et non pas ñaari nit yi ñuy invité bokkuñu position. Mm-hmm. te ku ne di wax sa xalaat ci réew confrontation la ñuy wut. waaw mais d'ailleurs am na sax émission bu ko tudd nañ ma baal. Mm-hmm. moo boobu lañ koy tuddee. la sans pour autant sax ma mm-hmm. man samay analyse bugguma di jeter ay anathème damay wax rek feeñ. mais confrontation taxul jóg nit trouver ay point de conciliation moo ñu a mooy man mi nekk AJ ak ki nekk APR ci suñu waxtaan tey journaliste bi puus nañu ba ñun ñu jàpp ni effectivement am na lu ñu wutale mais am nañ ay plage de convergence ci ni ñu gisee politique ak ni ñu koy doxal mm-hmm. ci ni mu leen di relancer ci ni leen di dalalee ci ni mu leen di wootewaatee ci ni muy orienté question yi mais léegi dans l'approche aussi bien technicien yi yiy déglu politique yi ak politique yi ci seen bopp mm-hmm. ku nekk da nga jàpp ni par rapport à ce qu'on appelle la problématique du buzz du sensationnel yow da ngay bëgg sax dara génn ca invitation ba ba suñu xëyee suba ñu def ko comme punchline hmm. ci biir réseaux sociaux yi ñu ne non diw brocard diw diw attaque foncièrement diw la réponse salée de diw dans même dans la terminologie nous sommes devenus violents hmm. même ci ni ñuy waxee violence engagée dañ ko ciy gis hmm. or man ma jàpp ni aussi bien parce que démocratie du rek politique yi. Mm-hmm. observateurs yi ci lañ bokk syndicaté syndicats yi ci lañ bokk. Mm-hmm. société civile ci la bokk mais surtout journalistes yi ci lañ bokk. Mm-hmm. aujourd'hui quoi qu'on puisse dire le débat public est en crise xuloo yuuxoonte saal kenn du promouvoir dal wax ci dal tooñante ah sama sama ñii dañ leen war a ci réew mi kat parce que ñii bi fi nekkee ba léegi defuñu fi dara après keneen ki ne ko yéen ay wax rek ngeen def suñ leen ko tegee it aussi wax ji ñu reetaan ci plateau bi pare jël pause kenn ki déposé moroomam ñu ñibbi parce que mun nañu am nag ay divergence ci ni ñuy gisee mais dañu war a am benn convergence mooy ni may waxee ni ma giseewul ak yow ak ni ngay waxee ni ma giseewul ak man dañ ko war a def ci jàmm dal ak salaam loolu moom moo fi manqué te loolu mun na nekk xale yi nga xam ne nii ñoom ñooy nekki nañ ko dugalaa ci seen njàng mhm. ci école primaire bi ci CEA bi mhm. ci université bi ci lycée bi ba ñu màggaaleeg moom day nekk réflexe boo xam ne c'est intrinsèque c'est ancré chez eux mhm. suñ koy def duñ ko sax tay ku wax ñu ne la ah, waaye bàyyi la waaye yow njóobeen nga yow njaayeen mais loolu ñun ñi amoon chance bi xale yi dañu fekk benn rupture bu ci xaw a am loolu moo tax mu xaw a sooxe mais euh, sant yàlla ba bi nga xam ne nii phénomène bi en tant que tel réerul ba léegi ñu ngi fi. effectivement nañ ko yeewaat former ko ba mu baax emballé ko joxaat ko xale yi ci ay paquet ñu appliqué ko. Mhm. alors ñu jàll ci beneen violence boo xam ni fitna la bu ñuy teg nag particulièrement ci jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi soxna yi ak euh, tout tànk yu jigéen yi euh, fitna googu di jaar ci euh, sàkku viol yenn saay ñu sàkku la ba noppi faat sa bakkan ci anam gu ñaaw a ñaaw a ñaaw boobu phénomène tey docteur booy jàngat cosaan li ak njeexital li lan nga ñuy wax waaw phénomène boobu nag moom phénomène boo xam ne nii la bu jékki day la buy relever ci benn natt boo xam ne nii yàlla daf ko teg jigéen te muy natt boo xam ne nii sas na aussi góor mi nga xam ne nii mooy magam mooy papaam mooy genn wàllam ñu xar tànk tubéy ba soppi ko te ba malheureusement mis sas boobu ñu tegoon góor ba léegi matalu ko mooy jigéen dafa nekk benn pour proie dafa nekk waa ci ni muy xalaatee dafa nekk pour pourwaa ci yaramam dafa nekk pour waa ci biir société yi euh, d'accord dafa nekk pour waa ci niñ ko yemalee ci ay espace fonctionnel am diggante gàtt tànk gàtt làmmiñ gàtt gis-gis gàtt bëgg-bëgg léeg-léeg sax ñu sàkku la wala ñu teg la lu mu warul teg bis nga naan duma ko wax parce que su ma ko waxee dañ naan waaw damaa ñemee dama wow bët loolu la ñuy wax une personne à préjugé j'avoue que suñu contrée yi ñun jigéen dafay nekk nekk fi jigéen dafa métti lool lool lool lool lool lool lool ba combat bi bu ko ñun góor yi nga xam ne nii dañoo nekk seen i jëkkër nekk seen i mag nekk seen i rakk nekk seen i nawle jëlul rek suñ deful nank du mën a parce que dañuy gis jigéen mu génn guddi ñu sax ko ñu ne waaw dafa uma bët da doon dox guddi mais guddi ku am sa soxla war koo mën a dox mm-hmm. l' essentiel mooy da nga doon dox farata wala te même soo doxul farata te dox a bañ a dox farata muy violenter une personne ci intégrité physique hmm. ba tax na léegi je crois que suñu buggee mbir yooyu ñu ñu ñoŋal ko dañuy teg ay mécanismes de protection loo xam ne ni dafay yiir day aar xale yu jigéen hmm. pas dans le sens où dañ di pousser ñoom aussi parce que affaire bi dafa xaw a délicat hmm. xam nga léegi ci ni ñuy aaree ak ni ñuy protéger jigéen aussi daf leen di pousser à ce que fu ñu la meree rek ne teg loxo wala yaa ma sàkku wala yaa ma ñu yenu yóbbu. def ko moom mooy moom mooy moom mooy revers de la médaille. Mm-hmm. donc man waxeewuma ci ci sens boobu mooy ñu jox leen ay mécanismes yoo xam ni dinañ leen gën a euh, tàggat ci xarañ yi ku ñu gis waxuma nga egg ci teg ay point yoo xam ne naka sudul noonu la de nga commencé koo jëfee wala nga waxee ko te njëlbeen nga rek ñu war a mën a bañ a laaxatu te loolu mécanisme yi may wax mooy jigéen dañ koy jàngal muy wax ay waajuram. Mm-hmm. dañ koy jàngal muy bañ nëbbatu dañ koy jàngal ku ko woo ne bis jox naa la chocolat même su dara xewul su ñëwee mu ne diw woowoon na ma jox na ma chocolat hmm. tant que d'un point de vue euh, de l'esprit jàngaluñu xale bi mu tijjeeku ba lu ñu ko def naka sudul noonu mu war koo mën a waxee war koo mën a jéebaane ça va poser problème. tant que responsabilité parents yi la surtout yi. bien sûr mais leen aussi lu xale bi wax ñu jéem a def effort xool ba xam dëgg la wala dëgg su dee dëgg ñu gëm ko. Hmm. ça va poser problème am na ci xale boo xam du wax parce que danaan la lu ma wax sama yaay du ma gëm. Hmm. il faut davantage redonner confiance aux jeunes filles aux jeunes de manière générale. mais hmm. surtout aux jeunes filles. ñu ñu ñu xamal leen ni seen wax day compter. waaw mais mais nit mënoo ko yar ba pare ñi am naka mais surtout il faut aussi mu am benn vigilance. ñun suñu kër yi dafay am ay promiscuité mhm. nga am bi sa benn cousin nga am bi sa doomu jëkkër sa doomu jible nga am sa oustaz bi koy jàngal mhm. il faut ñu xam ni mais ñu xam ni amul benn domaine buñ naan non diw jomb naa def loolu diw du def loolu mhm. nit yàlla moo ko sàkk mu lëndëm ci góor jigéen farlu bi waajur war a am mooy dafa war a ne tout le temps bëri guddi dem lu nalaw neex neex nga bett sa néegu noom dugg xool xool nu mu woddoo xool nu mu mu mu mu mu mu neex neex mu sedd neex neex nga jékki-jékki xool sa doom bu góor di ko laaj bis bu ñu tegee sa loxo sa jour mun ci teg pas nga koy nga koy traumatiser mais nga teg ko ci condition wu préparé nga ko déjà ne la bu la nit woowee ci bâtiment bu yàqu bu la nit di piis ci mbooloo bu la nit di yuuxul dawal mais léegi booy yi dañ leen a dañ leen wul daal hmm. te jamono bokkul ak jamono bu njëkk ba ñu njëkk ñoo gën a yeewu ñii foofu ñii dañ leen a gën a yeewu ci wàllu àdduna ay tablette ay portable ay informatique mais ni seen yéen a guddee noonu la seen xel yi suufee. Hmm. parce que démb amoon na benn proximité ak waajur yi effectivement. wuuteeg tey nga xam ni waaw ñu ci bari daanaka. mais mais bu njëkkaan bàjjan dafa amoon. Hmm. nijaay dafa amoon. léegi yow yaa am sa employé de maison sa jëkkër say voisin hmm. am na luy xew sa ginnaaw c'est ce que j'ai dit j'ai dit nekk waajur sas la sas c'est une mission sacerdoce la sax du da tëdd jox leen ñu lekk jox leen ñu naan da nga war a veiller sur ñoom bi nga paree nag nga jox ko yàlla mu veiller sur ñoom mais munoo bañ a fa farlu bañ a fa pagaru jékki-jékki ne yàlla yàlla yàlla ñëpp la fi nekkal dénk naa leen suñu borom. bàyyi lépp mais sabab lu bi aussi attention day fekk ci éducation. Mm-hmm. ci col say do sa doom bu génnee nga wodd ko ba mu dëgër dugalal ko baa ci suuf hmm. ba nit même pour mu egg ci moom sax suñu ko nit ñi dinañ ci dab hmm. mais aussi il y a un xale bu xale yu ndaw la ñuy nekk ñu bëgg leen transformer en potentiel adulte hmm. di leen sorloo yére mag ah. maintenant loolu je précise joxul kenn droit même su dee xale yi dañ leen sorloo ma yére mag même seen même su fekkee seen colin yi dafa jéggi dayoo joxul kii benn mag mu feebar wala bu ñàkk fayda ngay taxaloo ci ñoom mais bu ñu leen xool war na fagaru ba préparer doomam ba suy génn nit bu ko xoolee sax xelam mën naa bañ a dem ci moom wala xelam su demee ci moom it dina ko xool wala mu seetaan mm-hmm. parce que wolof day léeb ne léeg-léeg nga dab gaynde fekk ca doxin bala mm-hmm. mais yàlla nit yi ma xam na ni léeg-léeg ay xale romb la nga jox leen cëru mag parce que elles sont respectables mm-hmm. waaw loolu nag euh, exposé wul wala poussé benn yoon ay mag encore une fois comme ni ma ko waxee muy am ay benn gis-gis wala visée bu muy am ci ñoom. Hmm. mais peut-être dina tax bu échéance yi amee mu retardé ko mais dina tax aussi léeg-léeg xelu ñi feebar di bañ a dem ci ñoom mais dina tax aussi avec seen forte personnalité euh, li ñuy nekk xale xale xale xale soo leen xoolee mën nga leen bañ a yem fulla ak fayda boobu ñu doon def ci jigéenu Sénégal yi na ko waajur yi jëlaat def ko seen doomi jigéen yi ba ku leen romb di nga xalaat ci ñoom leneen lu dul naka sudul noonu hmm. kon bu ñuy xool euh, causes yi maanaam li nga xam ni moo waral tey viol yi ak euh, violence euh, fas fas ci jigéen ñi surtout sàkku yi topp ci faat mooy ñi feebar dañoo bari ci société bi bokk na ci ponk yi. ah mais bien sûr man nag ci sama pàccu spécialité wax naa ko sànq donc psychologue laa léegi nag ci ñun nag dañuy am yenn analyse yi ñu ne non bàyyi leen ku def dara nga wutul këyitu ku def dara institution mais sol dundu. te def sa biir bopp ni maa ngi dund ak ñi am xel ak ñi amul xel foog naa di nga gën a yokk sa fagaru. Hmm. Sénégal bu ñuy jël ñun ci ñun ñun spécialité ñi fi wér ci wàllu xel ak wàllu bopp dañ leen di compte. ñu hmm. leen lay romb la man maay docteur Sanoko di solu bestam suba ngoon wala yére wala fan yu rafet fekk di nekk ci xel mi ko mënoo xam ba ko dénk sa doom yow ma ko ba donc loolu façon seetlu boobu façon. Euh, ñaaw njort boobu dafa war a am ci réew mi parce que réew mi bokkuñu ko ñun rek ñun ñu suñu xel ñoom. Hmm. am na ñeneen ñoo xam ne ñun lépp luy xale lépp luy tuut tànk ñoom foofu lañ feebaree seen xel foofu la woyofee hmm. te léegi-léegi mënoo xam ñan la parce que dañoo maasaloo ci biir askan. Hmm. waaw loolu nag boo ko amee dañ koy booleeg fagaru bu ma sëkk sa doom su demee jàngi école su defee retard de quinze minutes nga woote xool ci li mu nekk. ci ni ngay woowee maîtresse bi ak maître bi sax day xam ni kii farlu na ci doom te ci noonu aussi la ñuy gën a joxee gëdd sa doom mais léeg-léeg na ma yàlla baal euh, ci ñi ko ñi may wax nit ñu bëri dañuy jur doom rek même soo leen laajee diw kañ la ñuy waaj mu ne ah xam ma ne damaa yaakaaroon treize heures lay waaj ñu ne la mais treize heures il est quinze heures ah, fu mu nekk de moo ko bàyyi boppam ba sa fan fekk la fi nga soo a tax sa hmm. donc il il faudrait davantage un certain niveau de responsabilité des parents pour gën a mën a euh, ci ñi nga xam ne nii ay prédateurs sexuels lañ joxuma leen benn excuse te li tax sax ñu koy def mooy seen xel dafa xaw a yëngatu dafa xaw a woyof te mm-hmm. euh, feebaru xel yooyu looy yuut ci mbedd mi ñu lay jàppee dof mm-hmm. looy def la euh, comme une de maniaque di solu ba jekk di sol grand boobu yi jekk di defaru ba jekk ba nit ñëpp wóolu la nga profité ci kóolute goowu mm-hmm. pour def sa sale besogne ñooñu aussi askan wi war nañoo jàng di leen ràññatle te buñ ci amee ay mbokk parce que souvent da ngay xam ni xel. sa doom ji wala sa jarbaat bi moom la. nga mm. ko bàyyi ko moom muy maasaloog mm. askan bi. nëpp nëppal nëppal bokk na ci li tax yenn mbir bi ci topp mooy day dal sa njaboot mu feebar en tant que mag mu def ko rakkam mm-hmm. pour a préserver sa njaboot nga nëpp nëppal lépp or même soo yóbbu woon mbir yi ci justice. suñu attesté ni dafa feebar mën nañ koo jàppale ba mu faju ba wér parce que faj ku feebar mu wér moo gën ngay nëpp nëppal ko mu def ko sa yeneen doom def ko sa yeneen mbokk def ko ñoo xam ne bokkul ak ñoom su boobaa askan yëpp lay lor. Mhm. kon est-ce que sanction yi ñuy prôné mooy solution bi ndax li nga wax nii mel na ni faj gi moo gën tëj gi ndax boo ko tëjee it bu génnee da cay delluwaat gis nañ fi ay ah, récidiviste ba mu ngoog mu yaa ko wax am na koo xam ne nii dafa ñàkk sa ko de defu ko ndax dafa bon da koy def ndax mënul téye boppam da koy def ndax su gisee loolu lay mel nii ku ku tàqali ko ak sagom mais ñun suñuy mécanisme teguñu en place ak ay outils ak ay rudiments yoo xam ni ñooñu mun nañ leen fa topp di leen toppatoo mm-hmm. ba gën a ñoŋalaat ñu wax ay groupe de parole boole ñoo xam ni ay ay dañoo am addiction sexuelle boole ñoo xam ni ay pédophile lañu tëj leen ci benn centre boo xam ne nii dañ fay ñëw di faju di lekk di naan di échanger et ñuy évaluer seen niveau de guérison et d'évolution kon lu ñu mun a faj la effectivement. mais effectivement euh, situation bu ko gën a grave sax euh, psychologie da koy da koy da koy faj mais lépp mi ngi dépendre ci ñu teg rouage yooyu ak moyens yooyu am na ñu ne damaa bëgg a faju am na ñuy juge di juge ñuy ñu ko biir tribunal ne la monsieur damaa feebar mais duñ leen déglu de en général bu ñuy wax yooyu procès yu ci bari duñ leen sax déglu non non non parce que fii d'ailleurs sax doon expertise médicale hmm. mais expertise médicale bi su souvent am na ci koo xam ne nii yow na mu kaso parce que kaso ba mu ko tëj sax foofu la gën a tàmmee lool hmm. foofu la koy gën a defee effectivement waaw xëy na génne woon ko toppatoo ko may ko chance ñu am ñu ko ñu ko ñu ko gunge ba mu seddalaat xelam ak bon structure yooyu dafay tumuranke ci suñu réew moo tax doo toog ñaari ñetti fan yoo xam ni déggoo ku ko defoon defaat ko. Mhm. wala ku ko yàgg ba bis xëy na feeñ. Mhm. docteur Abdou Khadre Sanoko la dalal ci démb ak tey mbokk yi di waxtaane euh, yenn mbir yuy am ci société bi euh, daan am démb xëy na waaye yeggul woon fi mu yegg tey ñu bugg a xam lu ko waral jéem ci itam am ay solution gi nga xam ne ñu ngi déglu docteur dañuy des ba tey ci jigéen ñi ndax ñoom fan yi euh, daanaka sax loolu dakkul waaye fan yii ñu génn mbir mi dafa gën a fës muy jur doom faat jur doom sànni loolu nag nekk phénomène bu yàgg aussi ci société sénégalaise mais day am jamono yëf yi jugaat ba xëy na euh, ëlëm lool askan wi euh, boobu phénomène noo ko jàngatee. du fi jug infanticide. du fi jug hmm. <laughs> parce que nit fu amee doom ni nga ko war a amee rek xalaatoo naan yaa ngi koy def loolu. il faut ñu waxtaanaat man je préfère bon maintenant peut-être que li may wax mën nañ ko porter à polémique juum xamuma nit ku dul juum man xamuma li bon mooy nga juum te te te sax mais comme Sénégal dañu jàpp ni tarxiis ba am doom te amoo jëkkër daal dañ laa war a voilà euh, à la vindicte populaire ñëpp di la wax yaa bon yaa bon yaa bon yaa bon te te war la wax ni li nga def nii garaaw na lool mais jóge ci nag jóge ci soo jógee ci lii nga gën a am jot mhm. gën a fas jot gën a defaruwaat say jaaj ba bañ a mhm. waaw léegi nga teg ko benn sax teg ko ren démocratie nit ñëpp bis boo juumee ba am benn grossesse indésirée vous êtes foutu ñu jàpp ne yow yaa gën a bon la Yacine ah mais su boobaa nag soo ko amee neneen nii noo ci mën a débarrassé woo pour fuir le regard de la société da koy def mhm. beneen bi doy waar mooy réglé wuñu problématique wu dans quelles conditions et quel niveau on se on réew mi daal réew la boo xam ne soo amee xaalis rek dina la dugg ci mën na laa yore te ki la war a yore moom mi ngi bitim réew du ñëw mu xamal na la lan mooy sëy te nee na amul këyit wala su fa demee il faut mu def wala trois ans wala quatre ans mu mel ni ñun amuñu perception bi sëyu biir ne amuñu ci sax connaissance yu bëri ki nga xam ne ni xamul say biir nekk moo gën a muñ ki ñu ko xamal ba pare waaw ñu xamal la say ba pare dem tukki bàyyi la si ay ñetti at ñeenti at d'accord seytaane mën la nga nekk jabaru jàmbur am kenn koo séqal ba ëmb fekk la ci mais xam na ni ñu bari duñ ko bàyyee ak ñoom mhm. donc autant on peut parler de ëmb bi autant on peut parler de lii indi ëmb bi ñu saafara ko mais ñuy wax ngir yàlla waaye ñi nga xam ne dañoo tukki te bàyyi bu seen jabar mhm. nañu daw ñëw defal seen jabar parce que ay nit lañ. jigéen buy sëy nag bu muñ juróom benn weer jàmbaar sax dëgg la soo ñëwee dina sunu borom ne dama la ko sant nga koy dëkkoo di ko dëkkal nga jox ko ko mais yónnee nit ay euro rek mu toog te du la gis nga ne ko noonu toogal ci kaw R plus 3 te doo génn <laughs> loolu aussi da nga koy exposé te loolu moom mooy conduire sunu genre sunu mbir beneen bi mooy ànd bi ñi di ànd ak ñu ñu bëggul ànd ko bëggul te pour pression wala pour intérêt te fekk ni yàlla mi ngi tiim xam na ni am na feneen foo xam ne fi nga bëgg moom fa toog nga koy fekk ji def naka su noonu ba leneen fekk leen ci beneen bi mooy il faudrait que ñu considérer que divorce yàlla moo sàkk sëy sàkk tàqli ko mhm. sëy bu mënatul ba nga jàpp ne yaa ngi ciy loru sa sëriñ muñal nga ko muñal muñal muñal muñal muñal dafa am fu mu féete mhm. su la leere ni mënoo koo xaar nga ñaan ko ne ko man xale laa ma bàyyi mais mënoo toog tamit ci yenn kër yoo xam ni dañ fay indi dañ koy jëlee ay handicap forcément dina am loo xam ni mën nga koo defee ak xale bu ndaw te ñu xam ni sa jëkkër mënul am doom soo ko amee da koy sànni donc le débat véritable beneen bi ci des aussi mooy inceste sa papa ji la jur sa mag ji la jur sa rakku yaay bi topp ci moom ñëw defal la teg la benn ëmb boo xam ne ni du lu du yow yaa ko sàkku mhm. sa papa ak sa yaay yëpp ne la lii yow sunu famille bëgguñu mu génn ci presse bi da nga koy muñ. Mhm. ah yenn saa yi sax yenn famille dañuy nekk complice am na bés. Euh, procès jigéen ju ñu jàpp moom ak yaayam ndax ñoo ànd suuf ah, doom ji. te te du jeex donc voilà donc loolu du jeex donc je crois que nañu xaw a wàññi tuuti ni ñuy focaliser woo ci sànni rey mais conditions yi koy indi. Mhm. mu seet ci ay saafara. Mm-hmm. yenn saa itam mu nekk ku ku mësta sëy mais euh, dañu seetlu ni li ci gën a métti ci jigéen ñi lay dal ndax ku góor ki moom bu ca pare pare na ca du am benn conséquence oh. même au niveau de la sanction sax war nañu xool góor gi nga xam ni dafa lay teg ëmb ba noppi daw responsabilité am waaw mais xam nga xam nga loolu la ñuy wax aussi il faut démasculiniser les textes de loi mm. démasculiniser parce que tey su fekkee da ñëw rek ci yoon ci wàllu yoon mënuñoo toppee ku góor ci daara waaw parce que ci ci texte yi waxuñu ni tooñ doomu jàmbur déli la. Mhm. dañ ñu tooñ mineur déli la. mais tooñ ku ñu takkagul nekkul nekkul déli. Mhm. su boobaa nag ñu ne en même temps yàq ëmb déli la donc loolu laay expliqué nii il faut ñu toog waxtaan quoi. il faut ñu toog waxtaan xool yenn texte yi. kon d'accord moom peut-être pour le moment ci ay mais daal ci ay légalisation de l'interruption volontaire mais. Euh, grossesse. waaw mais ñu xëy na. bu ñu tegoon daal mm-hmm. ñi nga xam ne nii ñoom ñoo koy def yi man góor laa ah, comme ñoom mm-hmm. mun na ma dal mun na dal keneen mm-hmm. xëy na dinañ def attention xëy na dina bu ñu voilà quoi bu ñu parce euh, te yenn saa yi ah, góor ki li muy bañ ëmb bi wala ñu bokk ci wala ñu bokk ci processus yu yàq bi amuñu ci responsabilité amuñu ci benn responsabilité mais yenn saa yi nekk góor góor gu am jabaram fële jàpp benn xale teg ko loolu bu pare ne ko man dama am jabar munuma di nangu nga voilà. Mhm. te loolu gis nañ ay kilifa yu mag mu dal leen fii am seen jabar ëmbal doomu jàmbur ba pare ne ko tax yàq boo parce nu ma mënal. wala ñu bañ ëmb bi carrément bu ko defee xale bu jigéen bi moom day jaaxle dootul. xam si mu jëm di wut ay bu amul nu mu ko dindee mu muñ ba doom ju juddu mu xool nu mu ko faagaagale. mais foofu laay wax ne société bi waaw. effectivement moo tax sànq ma ni la nañu arrêté di focaliser wu ci xale yi. Hmm. ñuy xool yan condition lañ leen lañ leen ci nan la ñuy nekkee ci situation yi ñu koy def. Mm-hmm. waaw parce que souvent aussi acte bi ñuy posé mën na ñaaw fekk ay victimes lañ. dëgg la bari na ci loolu ñoom ci seen bopp. waaw ñoom ci seen bopp ay victimes mais xam nga Sénégal moom il s'intéresse pas aux faits il s'intéresse aux personnes qui portent les faits. Mm-hmm. daaw nañ ci jugement te xamuñu léegi conditions yi nan lay demee. bon euh, kaso aussi daaw nañ ci tëj nit kaso trop xamuñu amende xamuñu euh, yóbbu la réinsertion xamuñu yóbbu la rééducation dañuy tëb rek yóbbu koo xam xëy na la nga ko fa yóbboo amoon na noo xam ni amaana soo ko ko yaree woon mu soppeeku. Mhm. mais su jógee ci kaso ba elle risque même d'être une personne révoltée pour dire que liñ ma jàppee woon ni dinaa ko def defati. Mhm. yaa ngi koy junj donc man l'approche doit être beaucoup plus pédagogique. Mhm. beaucoup plus mais Sénégal dafa xam nga dafa doy waar parce que euh, ñun ñi xaw a jàng wàllu euh, xam-xamu àdduna léegi-léegi nous sommes freinés aussi par xam-xamu diine. parce que soo nee aussi nañu nañu conscientiser xale yi pour ñu xool nan la ñu ay méthodes contraceptives pour bañ a nekk ci situation yooyu ñu ne la non yaa ngi leen di jàngal bon mhm. mais ok y' a pas de souci leen di jàngal bon léegi qu'est-ce que ñu bàyyi aussi exposer ñu porter ay demati ñoom xam ñu bëgg ci après ngeen jàppaat leen yóbbu leen lu ci gën a néew. waaw moo tax ma ni réew mii dafa am ay spécificité il faut aussi ñu koy waxtaan quoi. xale bu ndaw mineur adolescent pour nax ko dafa yomb mhm. nen rek nga mën a def pour nga jox ko ay matuwaay yi mu jël ba faggandiku bañ na nax hmm. jàpp naa ni waaw diine ci la bokk mu tee tànkam ci la bokk mu xam lu koy lor ci la bokk mhm. mais su dee xel mi eggul foofu aussi peut-être que ñu ñu mun ko proposer ay méthodes ak ay affaires xam ni da ko permettre ba du wan aussi lor mais man daal vraiment man question bi ma jaaxal ci sens boobu hmm. soo leen waxee nañ def loo xam ni ñu ne la loolu islam bugg ko dafay euh, comment ça s'appelle encore euh, da koy poussé ci bon waaw ñi euh, yi di jëlee mërti yi ñu koy ñu koy ñu koy bof mhm. perversion bi day bëri da koy poussé ci bon day tax mu koy tàpp ñu ne ok d'accord mais léegi soo ko bàyyee ak moom ci xelam te magum jëm a koy nax moom tamit mën na ëmb mu am ay pexem te magum jëm boobu kenn du ko topp donc gis nga paradoxe bi man moo tax ma jàpp ni Sénégal soxla nañu jël benn temps ñu poser problématique yooyu waxtaane ko ay weer waxtaane ko ak ñëpp ñu tudd diine yi euh, médecins yi professionnels yi psychologues yi travailleurs sociaux yi ñu xool daal nan la ñuy def ba jéem a permettre suñu doom jigéen ñi euh, ñu mën a mucc ci yu mel noonu parce que ñun ñi ko am yëpp su xale yi commencé jëm puberté dootuñu nalawati mm-hmm. alors ñu euh, wax ba tey ci wàll woowu campagne bi yaa ngi koy junj sànq ngir ñu légaliser euh, lii di euh, interruption volontaire de grossesse IVG maanaam nit ki bu inceste dalee ci kawam mbokkam bu ko jege wala juróom àgg ci moom ba mu jëlee ci ëmb ñu mun ko may mu dindi ëmb bi am na ñu ciy ragal ñu mel ni waa ONG Jamra que ñu awee foofu nag di yàq ëmb fu ñu toll yeneen ni euh, xëy na prox ndoll yoo xam ne mën na caa ubbeeku bu boobaa société bi lan lay risqué ci sa xalaat. de toutes les façons tout dépendra du législateur. Hmm. am na lu ñuy jéem a encadré taxi ba mu mën a ñu nekk ci situation boo xëy na euh, dinañ permettre ñooñu ñu dindi seen ëmb mais xam naa bu baax mam mam Matar Gueye waxee parce que mm-hmm. sénégalais yàlla da koo may xarañu xel <laughs> loolu mën na nekk benn buntu bu tijjee ko aussi probablement buy tax ñu mën a justifier beaucoup de choses mm-hmm. te demeewul noonu mais daal dégg naa daal lu mu wax loo xam ne nii man personnellement d' naa teg mm-hmm. bu dee inceste xaalis bi ñuy jël di ko fayee ay interruption de campagne ay ainsi nañ ko jox maison d'accueil su ëmbee ba wëtee ñu mun ko d' abord defal césarienne su dee xale la. Mhm. gratuitement mhm. su dee xale boo xam ne wiyam dafa exposé ñu dindi xale bi mu mu jut mhm. su dee attesté nañu ni inceste la. ca biir hôpital ba la ñuy bindee kayit jox ko kër ku ko war a yore te duñu bind turu yaayam duñu bind turu papaam kooku yor ko fa ñu jox ko ndàmpaay lu tax mu koy yore. ñu jox ko fa tur jox ko fa sant. ba bis yàlla dina dogal ñu soxla ay doom ñu ñëw foofu adopté la hmm. mais loolu état dañuy xar tànk kuréel ba ONG yi xar ci tànk kuréel mais mënuma comprendre ngeen ne ay ONG yuy défendre intérêt wu femme ngeen su dee ay affaire campagne ah, partout à travers le monde ngeen génn xaalis pour jeex mais pour ñu def mbir mi hmm. te bu ñu leen proposé na leen ngeen yóbbu ko ngeen financé en terme de les matériels couche matelas ndox minéral lépp ak état civil xale bi ñoom financé yéen ngeen bañ. mais fii orphelinat yëpp am problème. ñëpp am problème chaque jour ñu ngi tàllal loxo waaw. te Sénégal am na aussi ñoo xam ne nii ak ci sous-région bi soxla nañu am doom. Mhm. ñu encadré xale bi ko ci condition de santé yu baax di ko jox ci durant mu nekk ci ëmb boobu yëpp muy rencontrer un spécialiste di ko yóbbu muy def CPN am yëpp garantir ko ne ko jour accouchement elle sera assistée de manière clinique et médicale. ah su paree ñu jël en charge aussi post accouchement ne ko nag léegi doom ji dañ koy jël yóbbu ko ci benn centre mu jël ko en charge yow tamit ñu accompagner la ci nooy gën a ñoŋalee sa jabar sa sa sa xel ak sa yaram mais su boobaa kooku elle sera pas tentée de faire une interruption volontaire de grossesse parce que durant toute la grossesse jox nga ko ku koy topp di ko suivre di ko remonter le moral di ko déglu. mu am benn sage-femme am benn travailleur social am am am am am loolu ONG yi fi wax waxu campagne bii ñu am nañ moyen yooyu nañ ko déroulé ñu seet ba xam suñ suñu dawalee situation yu mel noonu après ñu dem évaluation a mi-parcours am nañ ñetti xale yu jigéen yu loolu dal defal nañ leen yu yu yu fal nañ mujjee je crois que loolu aussi ay solution la. mais mais docteur euh, problème bi dafa yaatu moom ak li ñu doon waxtaanee sànq viole euh, suivi de meurtre ak yooyu yëpp infanticide yi yooyu yëpp daanaka ci même euh, kii la nekk euh, chapitre euh, mais dafa mel ni suñu kilifa yi farataalu ñu dëgg dëgg dëgg yaa ngi wax sànq nañu woote peut-être ndaje mu yaatu xool nu ñuy waxtaanee loolu yenn paradox yi nga xam ne aussi boo ko seetee ba seet ko daanaka ñàkkul lu mu am comme responsabilité ci ci euh, cause yi ak euh, yu ni mel mais kilifa yi daal dafa mel ni yëf yi moom yitteelu leen noonu duñ ci wax duñ ci xalaat doo ci dégg dara bu weesoo xëy na woote ay loi tëj ki criminaliser lii alors que le mal est plus profond que ça am ñu ministère de la famille de la femme mais daal est-ce que vraiment société sénégalaise ñoom mbir mi farataal na leen wala yitte woon nañ ko ci ni nga gisee ñuy doxale ndax ndajoo continuer nii rek di dem rek euh, boo mayul tant que mbir dalul la dalul sa doom dalul sa mbokk bu la jege doo ko mbiroo hmm. réew mi tant que mbir nekkuñ newuñu ni sa doom la dal sa jarbaat la dal gis nga bu ñu tegale woon benn weeru lëmu hmm. nettaliwu leen wu ma leen ko ñaanalu ma leen hmm. bu ñu tegale woon weeru lëmu muy dal ay doomu ministre ay jarbaatu ministre ay ils vont se débrouiller pour trouver waxtaan m pour trouver cadre bi pour trouver norme yi pour pouvoir régler cette pour woo spécialiste yi ñu daje. Hmm. voilà mais comme baadoolo yi lay dal généralement peut-être que ça semble ne pas intéresser beaucoup. Hmm. beneen bi ci topp mooy nañ ma baal yenn ministères yi mais je dis da nga leen spécialiste ya fa nekk sax xamuñu problématique question hmm. peut-être que dañ fa nekk. parce que bon euh, am na yenn école de formation yu ñu jógee yu leen ko prédisposé mais affaire yi c'est des choses yoo xam ne tant que règle pas ay ci benn ñaari séminaire un mois trois mois. Mm. process la boo xam ne nii dañ koy wutal àpp de cinq ans su in su cinq pare ñu def évaluation à mi parcours. Mm-hmm. xool lu baax lu bon. ñu dem ñu jëlaat encore beneen cinq ans pour pouvoir aborder ko mais fi réew mi xam-xam dafay tumuranke mm. j'ai l'habitude de dire ñun ñi ñëpp on de la consultance gratuite te même cette consultance gratuite boobu bu ñuy def ci rajo ak télé yi mais ñoom duñ ko déglu. ñii ngay def ni ci la bokk. waaw mais duñ ko déglu. ñoom seen auditeurs tey xam nga si di ñun ñu ngi ñu ngi gouverner ci yenn ministères yeeg yenn départements yi musul ça pour coûte nga jël sa benn euh, bloc-notes léeg-léeg nga déglu les bonnes émissions qui abordent ay problématiques ak ay thèmes yu intéressants yoo xam ni comme fer na yow sa wàll. Mhm. ñu invité ci ab spécialiste environnement mais suy wax nga jël sa tur déglu bind mhm. parce que sa conseiller yaa ngi fa teg seen xam-xam eggul foofu mhm. ñoom it ñu am humilité bu toll ni ñuy root di taataan di la proposer parce que ñun suñu genre bi politique bu ñu def ñu politique mii la ñu leen mais am nañu yowén bu toll ni soo ñu woowee ci penc bi du ñu am benn république pour partager suñu mhm. xam-xam parce que dañu jàpp ni suñu jëlee xam-xam yooyu ñoom décidé ñu appliqué ko ils protègent nos soeurs, ils mhm. protègent nos frères, ils mhm. protègent nos trucs, bi lañ bokk. effectivement mais malheureusement bon ce qui pose problème mooy comme ni nga ko waxee au Sénégal les gens surtout les décideurs préfèrent s'attarder sur des considérations cosmétiques euh, mais les les les vrais les vrais problèmes en profondeur bu ñu ko jël en charge te yii ci la bokk ah parce que mhm. doo gis doo xëy ñaari fan te liiroo presse boo xam ne évoqué wul. alors infanticide ngir jeexal ci penc mi dem naka la ko daan gérer euh, ak tey ni nu koy defee ndax tey yenn saay yi euh, infanticide sa famille ci boppam ñoo la ciy pousse selon niñ lay ak yére selon ni ñuy euh, interpréter yaa ngi koy junj sànq mais démb naka la ko penc mi daan gérer. waaw xam nga penc mi nag j'avoue que ni ko daan gérer moom pédagogie par la terreur la d'ailleurs pour infanticide am day day problème parce que ñoom. ci sunu tradition yeeg daan nga dégg ñu naan suqubal dañuy wax sax jigéen boo xam ni dañ laa jox sa jëkkër boo dofloo ba gardé woo sa euh, chasteté parce que man. sa sa ndaw niñ koy waxee. waaw waaw je trouve une grande distinction entre chasteté ak virginité. Hmm. mais sa ndaw dofloo ba ñu ne da ngay dégg ñu ne sa papa ci boppam ñu ngi lay xaar ak suqubalam. Hmm? tradition voilà suqubalam sox sox sox directement lañ lay dóor je vous renvoie euh, comment la légende ou le mythe Hantu et Ndaté. Mm. loolu moo tax ba euh, je crois Ndaté demoon jël place am ko. Hmm. parce que xuppoon nañu nit ñi ba ñu ragal a def na ko sudul noonu suñu amul jëkkër ak hmm. mais aujourd'hui loolu laay wax paradoxe nous à l'ère de l'hypersexualité hmm. l'âge de la première expérience sexuelle soo ko soo jël fourchette am c'est entre douze ans ak treize ans. te amoo jëkkër wala amoo jabar. Mhm. waaw su fekkee nag dañoo tombé ci contexte boobu mais yaa xay ci dañuy jéem a waxtaan nag pour loo pour pour loo xam ni xam nañ ni mënut a ñàkk mhm. ñu teel ko ñu teel ko faag. Mhm. mais fii on peut dañuy daw les vraies questions. mais j'ai l'habitude de le dire da ngay ñëw ci xale bu ndaw bu am treize ans quatorze ans quinze ans ñu ne kële mooy copain. yaayam xam ko papaam xam ko ñu ne diw mooy kan diw diw de mooy copain wu diw. ba pare ñu bëgg a fuir la réalité que diw le fait que mu nekk copain ak diw ak diw minimum am na lu ñuy sekk ñoom ñaar que ñun ñu wax ko ak ñu ñàkk ko bañ a mu ndaw wala mu mag mhm. ñu toog nag ba tooxi doon a fekk ñu ci après mais yow xam nga ni dans la société traditionnelle ñi ñemewul woon seet fi jigéen mhm. ba vingt trois heures ci biir këram te mhm. xel xalaatu ko woon wax léegi nag c'est ce que j'appelle le paradoxe dañ légaliser la promiscuité légaliser yenn relation yi. Mm-hmm. ba pare après suy si yenn amee ñu jëm ko bañ. ñoom doo nañu woon gérer ay affaire infanticide de. Mm-hmm. ñoom dañ doon gérer nan la ñuy def ba doo nekk ci position wu infantile. doo fa yegg. première chose xale bu ndaw te fii dañ ni loolu pédophilie la ci loi bi. Mm-hmm. mais foofu foofu ñun suñu ñun suñu yaay yëpp quatorze ans lañ leen maye. génération bu njëkk bi. fukki at ak ak ñeent. koo ci ñaan ñu la dafa teel tey booba ñu ngay def li mag ñi di def. jeex na loolu laa yor par rapport. Mm-hmm. donc l'enjeu bi mooy société bi daf doon anticiper sur ça. Mm-hmm. su gisee ñaari nit ñu bëggante benn yoon lañ leen di seen ñu taxaw kii taxaw fii kii taxaw fii ñu wax suñu xëyee suba mag ñi gisee ñu ne may nañ la du ñu sax laaj caabi. Mm-hmm. waaw mais léegi-léegi nag dañuy gis ñaar ñu bëggante ñu ne du ma la ko may parce que yéen ñaar bokk leen religion parce que bokk leen xeet parce que amu leen xaalis. kii mënu la yore kooku dem di làkk. daa ñuy indi ay mbiru su demee ba jéggi dayoo ëmb rek moo ci tege te ñi mu dalul sax dañoo yeewu rek te aussi suñu borom suturaal leen mm-hmm. mooy am nañ am nañu jëfandikoo ba pare aussi xam nga am na ñoo xam ne nii am nañu may yàlla ba yiir na leen mbalaana sutura mm-hmm. gannaaw ba ñu yiiree seen bopp mbalaana sutura mm-hmm. mais Sénégal fii moom je peux vous assurer que man j'ai l'habitude de problématique sexualité fii xanaa njëkk a yeewu wax sa morom sàngul la mais ku ci sa mbalaanu sutura feeñoon nga xam ni kon am na ñoo xam ne nii te d'ailleurs loolu dafay feeñ ci taux de d'infertilité bi boo boo amee boo amee jëkkër ñaata nit la ñuy may jabar léegi wala nga am sa jëkkër pour nga dem sa première couche rek c'est la croix et la bannière bannière koo ci gis na yi faj koo ci gis parce que ci diggante bi am na yenn yàq biir yoo xam ne soo ko ci defee pour nga amaat doom day jafe. d'accord donc société bu njëkk ba ñoom euh, ils étaient très pédagogues par rapport la prévention. mm léegi ku ci am jabar bon ci suñu société ñun bon on a dépensé ça da dem hôtel. Mm-hmm. ñuy vérifier affaire sexualité bëriwul affaire la bande. Ah, foofu laa doon bëgg a ñëw sax société bi tamit ah, amoon na loo xam ni euh, dafa doon nekk euh, euh, mbirum sac mbirum kersa gàcce effectivement la bande boobu ñu doon def am na aussi effet boo xam ne daanaka am ci jigéen ñi. dañ koy def ci xupp la. Mm-hmm. mais dañ koy def aussi ci teral la. Mm-hmm. bis bu ñu la joxee sa jëkkër nga tëdd nga nekk xale mais lépp lu sa papa amoon ci bien moom ak ay xaritam ak ay mbokkam dañ la koy garnir joxe la en exemple saraxole exposer sa paañ ainsi de suite léegi loolu ci suñuy croyance ak suñuy valeur moderne loolu ku ko doon def sax ñu koy def dañ leen di jàppee comme ils sont ils donc boo ma laajee ni ma bu njëkkaan nan lañ ko doon gérer je trouve que waa léegi xale bu ndaw bi nekk foofu ne bis bii kenn du ma ko xañ bis bii ñu may teralee ma samay waajur kenn du ma ko xañ waaw mais léegi déedéet bisu jox sama waajur dot euh, de trois millions quatre millions nekk ci internet bi ñu couvrir ma en or di di ma woyal ma naan mariage bien validé te personne ne se pose la question est-ce que véritablement derrière ce mariage là il y a une chasteté mm. parce que yaayam li ko intéressé mooy may nañ ko trois millions may na ko un million yi. xaalis bi ñoom ñaar fan lañ demoon dañoo dem hôtel def une semaine bu woo la téléphone ne ou de voilà de reprise de l'hymen mm-hmm. nga fay xaalis bu bëri ñu defaraat sa sa ndaw mm-hmm. après voilà même su fekkee ni sax jëkkër ji xam na nu mu demee suñu ñëwee gis benn sër def lu xonk ne la mais yow doy na la d'autant plus que sa sa sa doom chaque deux semaines week-end mu may la six cent mille mm-hmm. deux cent mille ou trois cent mille donc on a d'ailleurs loolu la tubaab di wax bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée quand la société traditionnelle ñoom dañ doon fondé wu ci bonne renommée la société moderne se focalise sur la ceinture dorée mooy xaalis. Mm-hmm. ba tey ci Demb ak Tay docteur Abdou Khadre Sanoko ñu waxtaanee nag loo xam ni moom euh, ñëpp la àndandoo dal seen kaw muy insécurité ñàkkum karange gi aussi nekk benn feebaru société sénégalaise tey euh, néew na jigéen di dox euh, ci mbedd yor saak wala téléphone fi tam dal foo toll bu la moto rombee nga yaakaar ne ci yow la ñu jëm si góor ñi itam mucc ñu cambriolage yi daanaka moom ku ne mën naa dal sa kaw et à tout moment baa ngay dox rek ñu ñëw dal sa kaw faat la yaa xam góor nga ya xam jigéen nga nangu ci ci ci niveau boobu Sénégal. bon mais rythme boobu li ñuy def ci mooy moom laa la wax dañoo tombé jamono bu jafe jamono bi tombé pour am metti lool te ku am lu considéré wuñ la duñ lay yëgal ngénte la même ñaan sax dugub ok boolewuñu soo pour jafe-jafe pour faju sax ça problème soo bëggee ñaan jabar ñu ne la amoo. kenn du la tuddee doom. kenn du la tuddee doom nit ñi nag dañoo nekk ci situation boo xam ne bëgg nañ am bu xaw te bëy te bëgguñu ñàkk léegi nag lan moo leen encouragé ci ñoom ba am fitu def ko mooy dañoo amul la mise en place de ce qu'on appelle des mécanismes de dissuasion hmm. marché soo fa nekkee da ngaa war a mën a gis auto police mu gaare nga xam ni ku ñu ne rooy mu ne sàccee yi policiers yi mën a tëb mais yow di nga toog suba ba ngoon nga dugg marché li ngay réglé doo fa gis policier doo fa gis agent de police dëkku tubaab yi li ñu rawee moom laa doon waxtaanee sànq ci sama benn biir bu da ngay dox da ngay jékki-jékki di waxtaan ak sa xarit sax nit romb ñaari agent ñëw nuyu leen respectueusement lu ngeen di def fii dañuy waxtaan ne ko jigéen ci ça va est-ce que lépp jàmm ñu ne lépp jàmm lanam nga nga ni jabaram ah kupp ñu la dóor ñu la tooñu ñu la mais mécanisme de yi amul fi hmm. bu ñu la sàccee il faut nga porter plainte pour ñu soog a def enquête amul ay artère ak a euh, axe yoo xam ne nii fu nekk auto police war na fa taxaw wala auto gendarmerie ba suñu joxee alerte ne am na ñu ñu agressé tel endroit ñu war a mën a boucler périmètre yi jàpp ñooñu yow seetaan nga ba taay même su fekkee ni demoo Europe euh, ci film rek Sénégal bu fi nekk mës ngaa gis film ne dañuy woote ne def nañ del jëyee kenn kooku amoon na benn patrouille li ñuy wax les patrouilles patrouille bu doon dox léegi ci biir kaskam ne am na ku ñuy dàq ku jugee fële mais kenn ko maa a jege ma dem ko waaw mais léegi nag looloo fi amul hmm. nañu recruter ay policiers yi doy ak gendarme yi doy di leen teg ci marché yi ci banque yi ci ruq koñ mais surtout ñu leen di génne guddi j'ai comme l'impression que Sénégal force de défense et de sécurité ñoom li guddi moom kenn mënu leen mais docteur Sanoko paradoxe bi temps yi couvre-feu bi amee nga xam ne takk der ñu ngi ci mbedd mi temps yooyu la le cambriolage yi gën a bëri magasin yu bëri ci jamonoy couvre-feu bi la ñu yu bëri yenn endroit yi takk der yi duñ fa nekk mhm. ay accès la ñuy toog di xool surtout ci accès bitumier yi lay nekk. waaw rond-point yi mais ruq ruqaat yi daawuñu fa nekk daaw ñu nekk foofu xam nga ñu luñ soxla. Mhm. et euh, li ñuy li ñuy li ñuy wax euh, les actes criminogènes ñu ne ñu dem fa te loolu ak a yomb yow yaa wax léegi wax ji gis nga bi ñu demee couvre-feu ñu ne ñoom dañuy tëj ñun ñëpp ñenn lañu génne du armée bii armée sénégalaise nekku fi rek pour ne bu xeex amee la génne ñun on a une armée excellente ñoo gën a xarañ bandi yi ñoo leen gën a gaaw ñoo leen gën a xam ay technique yi jàpp leen duma leen dugal leen ci kaso nañ jël militaires yi bu ñu entraîné six heures du matin ñu dugal leen ci caserne yi ñu lekk ba jour à partir de vingt et une heures foo dox même su dee dañu war a parce que après soo ko génnee ci biir réew day mel ni wala lu garaaw a fa xew hmm. amul nañ leen bàyyi ñoom ñëpp ñu sol seen i survêtement yor seen i arme ak seen i ñu teg par trois ak par quatre ci ruqruqaat yi ne serait-ce information boobu su jàllee ñi ngeen di gis ñi ñu ñuy agressé waate yëpp dinañ def ñu jël ay moto yu doy jox ko gendarme yi yenn agglomération yi hmm. ñu gis nga suspect nga yenn nga accéléré yenn accéléré yi ñu toppal jour boo ko fee saagu jàmbur balaa ngay dem ñaari baat ñëpp di cointel léegi de borom moto yi pistolet sax la yor waaw mais nag léegi su doon gendarme yi cible yi policiers yi cible yi dañoo fees teel ci suñu biir suñ leen nuus ñu jàpp suñ leen nuus et puis aussi ne pas attendre ba ñuy agressé nii. anticiper mooy démanteler réseaux d'agresseurs les démanteler. di leen def di leen mettre sous écoute xam seen projet yëpp ba jour bu ñu waree nuyu ñu anticiper pour na leen nuus suñ ko defee weer wala ñetti weer yu mat sax ñu gis nit ñi bàyyi liggéey boobu dem nekk ci tailleur wala maçon wala mécanicien wala professeur di dugal mhm. mais bii dafa yomb mhm. sàcc quatre millions sàcc six cent mille sàcc après lu mujj fenn da takk sa kagul kenn du la gis loolu dafa xaw a yomb aussi donc am na benn étude bu génn fan yi rek UGB lañ ko defee mhm. soixante trois pour cent des sénégalais nee nañ ñoom ils se pas en sécurité au Sénégal parce que mun nañ la agressé def la lu la neex du mujj tey am nañu nag formation bi personnel ressources humaines bi la ñuy yokk recruter xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi fi di entraîner suba ngoon te bëgg a dem armée di leen fay salaire bu ko jar wala en tant que gendarme wala policier ñu nekk ci yoon yi ci askan bi lañu bokk dañu leen di fay mhm. ñu fàggul ñu sunu sunu sunu kaaraange mais kaaraange du rek 4 euh, avril ñu génne li ñu yor yëpp comme arsenal président bi toog toog mais surtout la nuit artère boo jël ci route nationale du Sénégal di nga daw ba egg doo gis benn benn patrouille wala benn point loolu dafa garaaw ah léeg-léeg da ngay sàcc wu ci benn ruuk dem kenn du la jàpp mais su la leeree ni am na patrouille bu nekk sa ginnaaw ak bu nekk sa kanam ñoom ñaar ñu wootante di kot la hmm. balaa ngay def 15 minutes ñu lijjanti la. kon leer na ñàkk sécurité rek moo waral euh, mbir mi demee ni mu demee ñu jeexal ponk boo xam ni tey daanaka moo lëmbe réew mi muy kilifa yi ak xaalis détournement moom daanaka léegi du fi xibaar lu lu naturel la luy am euh, ci bu ñu dénkee ñenn ñi euh, mais dañu romb détournement maanaam luubal léegi dañuy dugg ci trafic gis nañu fi député yoo xam ne tudd nañ leen ci mbir mi ndax sànq bu ñu waxee nga ni jamono bi dafa metti mais ñoo xam ni askan wi moo leen yoral lépp ñoo lay fay jox la woto jox la Euh, manqué woo dara ñu bari ci askan wi nga gën leen dundin bu baax a baax yow moom mu yaa wëlbatiku di def yenn yi nga xam ne itam ñëpp lay mujjee lor trafic bi xaalis dong moo ko lal ak yeneen ak yeneen faux billets yaa ngi fii coow li ba tey pënd bi wureegu ci noo expliquer tey ñi nga xam ni ñoo nekk ci boobu position boobu statut euh, am yooyu privilège wëlbatiku di def yu ni mel. mais ñi leen di tànn yat ñu yat ñu parce que dafa am benn concept bu am solo boo xam ne nii ak dafay am benn benn ñàkk fayda boo xam ne kenn farataalu ko muy éthique tubaab bi dañuy wax ne l'éthique et l'esthétique de demain sellal ak sell moom mooy taaru suba waaw lu tax bu ñuy jël nit di ko war a jox ay poste moom enquête de moralité yi kon moom fan lay jaar mais lu tax ñun bu ñu def promotion ñi nga xam ne nii seen dund yëpp jub ak jubal la ak sell ak sellal ñu jël ay affaire ay ay affaire de part fii à jox la ndomba tànk moom de day réew mi ñi fi nekk war a mën a doxal prix yeeg bëri xoolal système ni ñuy falee défilé da ngay bokk ci ci sa waa dëkk sax xamuñu la nga pare ñu jox la waaw soo jëlee koo xam ne nii moom ca teg cellal du mbiram nga yóbbu ko foo xam ne nii dafay gis xaalis muy circuler mais dañuy wax kay ki la feesloo moo la yàpp dans l'attitude dans la posture et dans la personnalité un responsable balaa nga koy fal di ko jox ndombay tànk daf lay leer daf lay li tax nga fal ko kenn mënu koo fëkk kenn mënu koo yóbbu mënu koo jënd kenn mënu koo ger léeg bi dañu lay wax ah ngor woomul ngor du koom-koom ku fi gore yëpp ñu bala fi donc promotion xam nga kañ lañ koy jox mooy kii saaj mën a fen mën a mbokum mën a lijjanti waaw su fekkee ni nag kooku moo nekk devant de la scène xale yi ñëw nar a mel ni moom ñu ci bëri suñu amee seen poste de responsabilité ils vont faire comme la même chose maintenant ñaar moo fi am di def la promotion des gens di sanctionner les corrompus ñi ñi ñuy favoriser ñii laal alal bu bu bu lewul ñii yàkkamti ñii ñii dugg ci lu setul ak lu lëndëm ñu jox leen ay sanctions yu ma sëkk yi ñu yelloo. tànneef gi de mënuñu ko daan defee. waaw non mais c'est que démb sax mooy da nga daaw yëkkati loxo naan dénk leen ma dañ naan wóolu lañ diw ba dénk ko xam nga am na différence. waaw. dañ am na sax nu ko wala ko indi bee ne fas doo ko jox ki ko bëgg da koy jox ki mu bëgg. alal ak dénk dénkaane ka la doy dénkaane ka wóor mais bokk lu ñëpp bokk nga jékki-jékki ne ay député ay honorable député nga jël leen rek tabb leen boo xam ne leer na leen day jàll parce que dañoo nekk ay partisans politiques wala ñu nekk ay militants ñu pare falu mais Sénégal tant que duggewuñ ci mbir moomu xoolal nit ñi ñuy tabee ministre xoolal nit ñuy tabee directeur généraux yi xoolal nit ñuy tabee mm. waxuma ne ne ko bon am na ñoo xam ni voilà ils ont une attitude irréprochable mhm. ba ci biir nguur yi ba ci ministre yi mhm. am na ci ñoo xam ne ministre mënu leen tax a change mhm. noonu lañ mel seen traite la seen juddu la seen yar la waaw mais nag ñooñu sax amaana xëy na poste yi leen war a jox du leen ko jox wala léegi-léegi dina la yow loo def politique parce que yow ni ngay gisee waaw da ngaa jubba <laughs> ah, donc comme mbir yi moom ñi ko war a doxal mbiru jubadi la mbiru sellandi la ah mais forcément ñooñu lañ gën a gis. parce que ñooñu gën a jox baat. Mm-hmm. ñooñu gën a siiwal. Mm-hmm. leer na docteur Abdou Khadre Sanoko ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon na ñu mbégte càmbar yi ponk ak yow bu ko defee xëy na ñi koy dégg mën caa gindeeku mu itam mën a bokk ci liy jur saafara xëy na ci yenn jafe nga xam ni kenn mënu cee mucc ndax ku mu dalul ci yow directement it dana dal sa mbokk wala sa xarit lu ci mel ni infanticide viol suivi de meurtre insécurité yooyu yëpp daanaka ku mu laal laal ka ci des ndax Sénégal ñoo ko bokk jërëjëf gërëm bu baax a baax amoon na ñu mbégte lool waxtaan ak yow bi di leen gërëm également ci le fait que euh, journaliste li lañ koy doyee média li lañ koy doyee mooy wax ci jafe-jafe yi sénégalais yi di dund seen biir kër bis bu nekk te amuñu fuñ ko jooyee yow nga jël ko teg ko ci penc mi waxtaan nekk waxtaan te ci seen xel màcc ci wàll wi ñu setantal ko ci ni mu gën a leeree pour le seul intérêt exclusif de populations sénégalaises donc man kay man maa la ameel jaajëf di ñaan yàlla liñ ñu wax yàlla nekk njëriñ pour ñëpp te bu amin amin jërëjëf yow itam ci disponibilité bi Abdou Khadre Sanogo psychosociologue moom la ñu doon dalal mbokk yi ci démb ak tey waxtaan wi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci youtube ñuy gërëm jaawo jàll mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom loon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm